mbokk waa Bantamba TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant comme chaque samedi rek tey nag seen émission Bantamba Cumukaay nda amati beneen gan beneen acteur làmb nga xam ne day yëngu si làmb si wàllu spectacle kooku nag mooy El Hadj Ndiaye Rose. dafa am promoteur dafa am promoteur bu doon yàq. bëri na am ama der la ko je pense pas que physique bi Balla yor mun na ko mun na ko daan. mu xool ñaari boy yu jóg rek mu bëreeg ñoom. Balla Gaye Zos waaw Zos moom baax na moom. ba Balla Gaye waaw Zos mën na waaw mën na forme bi forme. bàll c'est pas sportif. danaan doppewu danaan dem Amérique doppewu danaan def lii moom la ñuy doon wax. waaw CNG def na ci lu bëri moo tax damay remercier toujours président Alioune Sarr kenn du moom Sénégal dootul amati ku mel ni moom.